bu len faté abonné ci sen sen youtube samsu tv jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngéni sen ci sen écran samsul huda amadi avani ma samsu tv moy sen tré mooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. mooy suñu télé dee leen ko seetaan. Samsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV la ñuy bëgg ba aljana. ay waay di ko bëgg waay ba.

baru apa saja 차례야 예 준비 아쿠비 아람에게 아람에게 준비 이 Dira dara Arema ki un deux Pakan maki un deux un Dira Montons maquis. Montons dara. Ulgul Anne Macky un Mzee Chumbi, Tiger Samjan, Riapsi, Sijer. Elia? Tiens. Ya. Monsieur Chumbi. D'accord, sans Jean. Criapsi. Si ñee cumbi anja teliya ñee cumbi batike cumbi abdoo caagi un eh. deux Palmeiras eh. Tiagi. Un. Deux. Deux. Un. Almanguez. Deux. Un. charge. Eh. Eh. All my girls. Eh. All my guys. Baro. Chalia. Here. Come say gagal organ. Kriopsi. Si je Anda kita orang. Selia. Ya. Cumbi. Aku pergi arah mekik. Ada yang go, dia pun. arame ki si je Yeah. Baro. daara jaa ngi noonu gannaaw ba moom kadal alxuraan te ñu bàyyi la fi li ñu yéene mooy bépp ku bëri ku fiy jógee takk ceinture noire ku fiy jógee du jox la sa diplôme ba ku fiy jógee am sa. Chalea bien. baru. Ya. Ya. Ya. Aku. Ya. Asa. Baru. Saya lihat. Ya. Baru. Tolong. Ibu yang kebabakan ke sini dengan dua ya. yal na yàlla saxal ko ci barke Seydina Muhammad suñu boole alquran nag ñu tànk te la baax ci ñun yëpp daana jàngoo bien maître Khalifa ak maître Moussa xale yi ba ñu dem dara jangi non way ma ngeen nek sa loxo bu ci den parce que dara jangi mo xam xam ko ne ci dugul ci loxo rek ko na ci loxo ci islam diine bo le gën ko rek inshallah jama saja Yeah. Souvenez quelqu'un C'est celui-là. Voilà. برساني جلوس السلام عليكم شلاي تامبلي asalaamualeykum ci lay tàmbalee di ay tappalee cëy Sénégal cëy Sénégal réew mu tedd ngi ndax suñu mag ñu baax ñii tëdd fii suñu mag ñu baax ñaa xeex ba réew mi yegg si fii ñoo dagg buumu jaami ba liberté am booba ba tey jii Sénégalu démb ak bu tey wute na lool ci suñu gët yi li ko waral mooy politique bu bon bi yàq suñu société bi këpp kees njublang ak trahir ak mboolem yu bon yi fa ñu naxee ñëpp jaaree fa tey suñu réew mi nañu denc Machiavel te dendu téeréem bu doy bi xam ni moo tënk politique bu bon bi yàq suñu société bi te bàyyee roy ci tubaab bee ñu natoon fii te loolu lañu bëggaat ba tey fii ci suñu réew mi loolu nag buñ ci loolu amaat fii ñaata yoon ñaata yoon lañ ñu nax jël suñu réew mi dëkke di ñu nax te jëriñu dara ci suñu réew mi suñu maam yi dee na ordonnance bëgg dund bëgg jàng bëgg faju mu jafe lool ci suñu réew mi lépp lu fi baax ñoom bu ñun ñu dëkk di tumuraan xëy di dee kon jot na ñun waa alxuraan jugaat taxawaat ci mbir mi delloowaat réew mi comme na ko suñu mag ña bàyyi woon réew mi comme na ko suñu mag ña bàyyi woon diine ko moom mii buur wóolu ko wéetal ko yaakaar ko ba noppi tàllal suñu loxo ñaan ko lu ñu sóob mu fekk suñu yal na yàlla dolli ñu ndimbal sàmmuñu suturaal ñu aar ñu def insaan sàmmuñu suturaal ñu aar ñu defal ko kulli taxool ci ñi di bakko Sénégal suñu gaal nañu yeewu ubbi ñi taxool ci ñi di bakko Sénégal suñu gaal ñaata yoon la suñu maami na ordonnance ana fi doon de naax dafa naax lépp lu fi baax ñoom ñu jël yóbbu ko ñu dëkkee di tumuranke xëy di dee suñu bëggee loolu jeex lenn moo ko mën mooy delluwaat ca daara ja xam li buur bi wax yeewuju ubbi baati taxool ci ñi di bakko Sénégal suñu ga nañu yeewuju ubbi baati taxool ci ñi di bakko Sénégal suñu ci lii de lay tëj moo di dénkaanu maam ta moo di daara leen fa seeni doom quraan ak hadiis xamal leen jamiul ulum ngeen jël xamal leen ñu delloo di ñaan ci mi yi di buur ci barke alquran yàlla buur bi may ñu ndam na ñu yeewu jug ubat yi taxool ci ñi di bakkoo seene al suñu gaar na ñu yeewu jug ubbi bat yi taxool jemo di dengkanuma tamo di darai obule sendok anadis gen. may ñu ndam ñu yeewu jug bi ba taxaw ñi di ba تبارك الله Hello? kon nag mbokk yi su ko defee rek yaakaar naa ni yegg si nañ ci cëppaandaw li fi nga xamante ne bi fi la programme bi jeexee ndongo yaa ngi noonu di tàggatoo saan mu doon moment bu daw yaram ngeen dégg way yi ñuy way way yu daw yaram ndeysaan ila la xaa ba beneen yoon ñu ngi leen di jox digg daje ba déwén ak jàmm ndeysaan muy moment boo xamante ni bi yaakaar naa ni metti na ci ku fa ñu fa teew ñëpp metti si ñoom ndax maa ngi dégg euh, mbokk mi yor micro bi doon wax yaay dang euh, dong yi mënatuñu sëye seen bopp ndax ay jooy waaye ku seetlu tànt bi waxuma la yaay dong yi waaye ñëpp doon jooy ndeysaan mu doon loo xamante ni bi euh, lu lu daw yaram la lu daw yaram la waaye doo jooy jooyi mbégte la waaw jooyi mbégte la waaye tamit mbégte mi ñu amaat ci jotaay bi mbégte mi ñu amaat ci jotaay bi remarque bi ñu defaat mooy nit ñi ni ñu bëggee yàlla nit ñi ni ñu bëggee alxuraan waaye nit ñi ni ñu bëggee seen doom jàng alxuraan yaakaar naa ni taxaw seetlu boobu moom eh, ñu bari war nañ koo def waaw ñu bëri war nañ koo def waaye wala waaye itam jàngat yooyu war nañ ko yaatal ndax daa damuñu eh, di gis tàmmuñu di gis di baatare tàmmuñu di gis di baatare ci ay eh, programme yi diine baatare bi booba xamante ne bii xaalis bu weex tàll ngay baatare mais tey gis nañ fi koo xamante ne bii day taxaw di génne ay dix di baatare ba muy mat ay cent mille ay cent cinquante mille wala ba muy mat ay deux cent mille francs wala wala tey itam dalay leer ni ñu koy def seen doole bu ñu amoon lu ko ëpp dañ koy def. waaw seen doole bu ñu amoon lu ko ëpp duñ koy def waaye nag na ko na ko baytaala yow waxee rek ci biir waxam yaakaar naa ni maanaam euh, ka joxe lu buree la néew am na solo amul solo waaye li gën a am solo rek mooy yow mi koy joxe yi pas-pas bi nga am ba koy joxe yéene ba tax nga joxe ko yàlla yàlla fay leen kon loolu lu am solo la koo gis muy baatare génne alalam di joxe te joxewu ko ci alxuraan wala joxewu ko ci ñooñ alxuraan wala lu mel noonu jàppal ni ma ngay euh, taal xaalisam wala ma ngay ma koy dugal foo xamante ni bi lu koy lakk la ëllëg waaye ñi jël seen xaalis tey di ko battre fii ci euh, programme bi yaakaar naa ni ëllëg buñ dajeeg seen borom subhaanahu wa taala dinañ ne bu démbatoon tey dinañ ko yokk bu baax a baax waaye yàlla nañ ko gën a man yàlla dafa dafa dafa dafa jot waaw dafa jot ñu gën a xamaat bu baax a baax pouvoir bi euh, alquran am waaw ñu gën ko xamaat euh, loo xamante ni bii mooy mooy mooy message bi nga xamante ni moo jóge ci yàlla direct waaw amul leneen looy xool loo xamante ne bi da nga naan lii yàlla moo wax ak ñun fii direct lu dul alxuraan moom ngay jël ci bàqara ba minal jinnati wan naas muy kàddu goo xamante ni bi soo koy wax la nga yëg ni mooy borom bi subhaanahu wa taala mooy wax ak ñun kon mbokk yi loolu koo xamante ni bi dugal nañ ko sa xolu doom mokkal na alxuraan bàqara ba minal jinnati wan naas yaakaar naa ni mbokk yi loolu kenn amul fayam kenn amul fayam bëgguñu tudd turu waaye ñun suñu wàllu bopp ci biir liggéey bi dañuy dem ba ci biir suñu xol day tooy ndax gis nañu ñoo xamante ni bii wóor nañu ni li ñuy joxe joxe joxe nañ ba jox ba ba ba amatul lu ñu joxe. waaw dañuy wóor ni seen xol nangu na ko waaw dangay gis koo xamante ni bii tàmmuloo koy gis sax si ay programme tàmmoo ko gis sax mu jóg di di di def dara waaye dangay gis tey day jóg di baat mu wóor la ni kii li muy def. du lu muy triser dafa ko pour ngistal dafa ko lenn lu dul alxuraan moo moo nekk ci ci ci dënnam kon nañ jàppale waa daara yi bu baax a baax a baax a baax waaw nañ jàppale waa daara yi bu baax a baax a baax ndax mooy jàppale suñu bopp ndax mooy jàppale diine lislaam ndax mooy jàppale suñu bopp kon bokkee nañ jàppale waa daara yi bu baax a baax xale yi nga xamante ni bi ñoo fi mokkal alxuraan mu tollu ci fanweeri xale ak benn ñaar fukki ak juróom eh, nekk góor juróom yi eh, juróom benn yi nekk jigéen ñoom ñëpp yàlla bu alxuraan mos a génnaat seen dënn yàlla na yàlla leen gën a taxaw ñu koy nafar saa su nekk ba du mos a fët yàlla yàlla gën leen taxaw euh, euh, barka démb rek dégg nañ benn euh, sëriñ daara bu koy wax ci benn programme yaakaar naa ne Mouhamed Gueye la nee na xaw ma kan la wax nee na maanaam mokkal bii xale di mokkal alxuraan première première phase la waaw première phase la waaw première phase la boo xamante ni bii bokk na ci phase yi gën a gën a gën a gën a jege. waye fexe bam xale bi mokkal alcorane ba dootu ko ba dootu ko fëtt loolu beneen affaire la lolu benen mbir la yàlla yàlla dafal len ko yàlla na lislaam gën am dam yàlla alxuraan gën a jëm ca kaw kon bu ko defee mbokk yi buñ ko toppee duñ fi jóge dañuy wàccee suñu kàddu rek waaye di leen joxaat numéro bi nga xamante ni bi képp ku bëgg indi sa doom ci daara ji rek mën nga jaar foofu eh, muy 77 901 35 91 77 901 35 91 yaakaar naa ni boo ci wootee directeur bi ci bopp ngay jot muy Amadou Makhtar mi ngi noonu daara jaa ngi ngeen ko gisee dañuy jàngale alxuraan eh, di jàngale français di jàngale anglais waaye tamit eh, di di am na armation am na tàggat yaram am na lépp kon mbokk yi daara ji yaakaar naa ni ku ko gis moom wax dëgg yàlla xam ni nag eh, daara la ci biir daara yi yàlla yàlla gën leen taxaw yàlla yàlla gën leen taxaw waaye nag ñu gën leen jàppale waaw ñu gën leen jàppale ndax koo xamante ni bi da lay leen moom léppam alxuraan la lépp jàng ak jàngale la lépp loo ko jox si biir daara la koy defaat mbokk yi kooku neex na neex na jàppale nag waaw te wax dëgg yàlla nag olof nee na kenn defalul kenn dara lépp lu waaye def sa bopp nga ko nga ko nga ko defal imaginel tey ngay yàlla dénk la wër sa guddul jeex nga nga ñëw ni eh, oustaz lan nga bëgg ci daara ji ma ma defal ko mu ne dama bëgg nga tabaxal ma benn benn immeuble boo xamante ni bii R plus lay doon nga defal ko ko xam nga moom ko defal moom nga ko defal ndax dinga nga ko jàppandal lu bari waaye loolu root sotti sa ndaa la yow nga ko defal ëllëg kenn du ko fay Amadou Maxtaar waaye yow lañ koy fay kon mbokk yi wërsëg wi ñu yàlla dénk mu néew mu bëri nañ ci jaamu yàlla bu baax a baax a baax nañ ciy dimbali daara yi ci nañ ko mënee yàlla yàlla gën ñu sàmmal daara yi yàlla yàlla daf daara gën a am ndam di jaajëfalaat bu baax a baax waa institut islamique eh, daara imam Amary Ndack Seck jël jaajëfal boobu rek teg ko ci loxo Baye Talla Dia bu ko defee rek mu yóbbaale ñëpp waaw ah, mu yóbbaale ñëpp ah, suñu baay xalifa Bousso moom ah, moom moom moom dafa nekk ca kaw waa moom moom dafa nekk ca kaw waaw moom dafa nekk ca kaw yaakaar naa ni ñu ngi koy santaat di ko gërëm ndeysaan nee na su ma dee ñëw fii ci daara imam Ahmadou Ndack Seck gëlëm ba xawuma fan laay jaar ba réer. yaakaar naa ni loolu loolu loolu mbokk yi mën nañ ci jàngeewaat lu nekk dara joo xamante ni bii yow yaa teg première pierre bi yow yaa def fondation bi boobu ba léegi daara ji lu fa mos a xew say loxo la jaar nga fay ñëw di réer yaakaar naa ni loolu beneen mbir la bay xalifa bu sa yàlla yàlla gën ko taxawu yàlla yàlla gën ko jàppale bu ko defee rek ñu wàccee foofu suñu gàddu di joxaat ñëpp di daje yóbbulee xale yi si daara yi ñu jàngi dinañu am yar dinañu mokkal alquran dinañu am diine waaye itam dinañu yeewu te itam ah kenn mënta wax lépp waaye nag yóbbu leen xale yi ci daara ñu jàng képp koo dégg mu naan su ma dellu waatoo nekk xale yi dinaa jël sama doom yóbbu ko si daara mu jàng mu am doom te yóbbu ko si daara mu jàng nee nañ la muy wax jar na seetaat kon bu ko defee nañ yóbbu xale yi ci daara yi ñu jàngi nag waaye te xool nag daara yan lañ leen di yóbbu nag lu am solo nag waaw. ñu xool yan daara lay yóbbu xale yi ñu jàngi nag ndax ña ngay jàng wala jànguñu wala dañu leen di jàngale wala leneen lañ leen di defoo kon mbokk yi daara yaa ngi noonu benn ngi nii ci exemple yi daara imaam Amary Ndack Seck bi nekk fii ci cees yàlla yàlla gën leen taxaw di ñaanalaat bu baax Serigne bu Baye Serigne Assane Seck yabal fi délégation bu am solo waaye tamit ci biir euh, programme bi rek mi ngi woote euh, mi ngi woote ndax euh, ku nekk xam nga ni ci nawet lañ nekk te bàyyi sëñ bi moom moom moom daa daa bëgg tool daa bëgg tool lool waaye yabal na fi délégation bu am solo jiite ko sëriñ Jibi mi nga xamante ni bi moom itam doomam bokk na ci ñi mokkal alxuraan tey ak sëriñ Ahmed Daam ak sëriñ ñaana ñoom ñëpp la àndal ak taawam maajooj ak ñoom sëriñ Xasan euh, ak euh, Serigne Madick ak ñëpp ku lim rek desal bu ko defee rek ñu wàccee foofu suñu kàddu di leen joxaat dig daje di ñaanalaat bu baax xalifa général bay Serigne Assane Seck yàlla fi yàgg lool am ànd ak wér yàlla na yàlla gën a def lislaam gën a am ndam asalaamaaleykum wa rahmatulah.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 Samsu TV mooy seen télé dee leen ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. mooy suñu télé dee leen. Samsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV la ñuy bëgg aljana ay waay di ko bëgge waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëgge ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bëgge ba aljana di ko bëgge waay aljana